asalaamaaleykum wa rahmatulah ñun de ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaar di nuyoo Ami soxna Ami na ko daan defee rek ci weeru koor yi noonu la defaat bëgg ngeen sàkku ci yéen ñaan euh, fii ci dëkku maamam nag lépp lu mu ko def def naa ni moom war naa mën a nekk di ñaan rek nga ñaanal ko suñu borom yokk ko ba ëllëgee mën ëpp lii. moom daal mi ngi sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax a baax bëgg ngeen ñaanal ko bu baax a baax. dëgg yàlla <laughs> jërëjëf Moussa jërëjëf. soxna si ñu lay ziar bu baax a baax leen nuyu di la yóbbante nuyoo ci soxna Ami Mbacke ak ñi nga àndal ñëpp di ko sant tam bu baax a baax ci jëf ji mu def muy jëf joo xam ne warees na ku cee sant waaye wareesu ku cee sant ndax ab liggéeyam la liggéeyu maamam la ku ci nekk ku ne moom lay. jàppale kon bu ci jëfee waree su ko sant waaye waree su na ko sant nag ndax ñi mel ni moom war cee def te defuñ ci dana tax ñu sant ko ndax dañuy wax ne àll jërta naawe mat ñu ne ah kay ndax àll yi ko amul kon ñu ngi koy sant ci doxin wi ak fàttaliku fi nga xam ne lépp ma kon bu fi xelam jëmee ba fi def liggéeyam ak jëfam faaw ñu sant ko baax a baax doole nag di ko ñaanal itam suñ borom sàmm ko aar ko may ko ndam ci lii muy liggéey kóolute giñ ñu ko jox ba di ko ci liggéey loo ci réew mi suñ borom defal ko ci ndam defal ko ci tawféex waaye fal ko lool ba fi nga ko bëgg a àggale lépp borom àggale ko fa ci barke Serigne Touba mi ñu bokk. ñu ngi koy sant bu baax a baax bu baax a baax di leen ci yóbbante sant bu baax a baax jef ji rëy na lool yàlla na ko suñu borom nangu ci barke sëriñ bi sant nañ baax nag jërëjëf jërëjëf wa munzili shifa